وكب من أنكر بانفراد لا يقول على آياتي أبدا خديما فاس بالعياتي أذكر أجر الذين شربوا taal dëkk bi nag ni ñu ko nettalee 16e siècle la muy Gaadiel Ahmed nag moo jóge woon ci réewi arab yi ci gàttal ba ñëw jéemul di def ay soirée yu gudd duñ ci sole ci sax yi mu doon def ni mu daan fanaanoo ak mu daan yeew ba egg si jéemul yàlla dogal mu di fa jaamu yàlla ba am fa jox ko soxna su naan Ngoone Sabel mu am ci gumba Ngoone gumba moomee nag tuddul gumba Ahmed la tudd Ahmed Mouhamed moom Mouhamed lay tudde doomam ñu demee ba yàgg nag mu ne sama doom jii de société bii mu juddoo da cee gumba ndax li ñuy def du ko def li ñuy wax du ko wax loolu mooy turu gumba yi yàlla dogal nag moom gumba moomu nag bi mu demee ba tollu ci nag euh, nekk mu kàllaf nga xam ne moo waajuram moytuñu war a nekk daal ndax loolu na nitu diin noonu lay doxe mu wax waa waajuram waajuram ñaanal ko mu nag ne moom day dëkkukaayam ci alquranul karim la koy sose mu sàmbalee ci kaamilam sootul baqara waaye gumba moomu nag rek la Ahmed am Ahmed moomu wàcc jéemul benn doom la am muy gumba mu départ mu gumba moo ko meñ yor kaamilam tàmbalee ca téere kaw ba baqara ba téere suuf bi jeex sootul kaafi bi am yemee ci man kaana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan saalihan wala yushrik bi ibaadati rabbihi ahadan mu daal di taxaw julli ñaari rakka dëkk boobu mooy siin amar gii ngay romb ci digganteeg jéemul ba mu fa jógee tàmbaliwaat téere suuf bi muy yam ci minal jinnati waa mu ne day fii laay dëkk de fii la ma sama borom wax ne naa fi dëkk bi mu egsee nag mag ñi wax nañ ne bi mu fi ñëwee noddu leen fi njëkk a def xam naa waxtu lay doon ñu fees xar mi di ko rendi nee na bar ñëw bi mu ñëwee dafa bi bàyyi yàlla ñëwee dafa tiit dafa jaaxle ndax dane buru lii mu fi dégg mësu ko fee dégg waaye nag bi mu gisee ñu nodd ñuy jàngal xuraanu karim lana kii de ak ak nitu diine la moo fi ñëw kilifa moo fi ñëw xalaat na ci moom buur bi tamit daal di wax ak moom ndax booba buur bi daana dem ci moom moom ak waa waajuram mu ne ko nag daggal ko diggante fii ak njàng daggal ko ci digganteeg yàlla ak yeneen dëkk yi waaye diggante ngalig nag mooy sedd kat ngali xuma gi ci la wax ne diggante sëriñ ak moroom ma duma ci wut aw dig muy maa baraan xuma ak maam gumba ngoone moom mee sañcoon fii xam ñoom ñaar amuñu woonu dig li tax ñuy wax gàdd ga fa yàll nag la fee fekkoon yàll gii moo tax ñuy wax gàdd ga fa yàll loolu ko waral yàlla dogal gàdd gii den nag moom di gàdd joor it fa la yóbboon jur gi ñu nekkoon foofu mu nekkoon fii nag di jàngal xuraan di jàngale di jaamu yàlla di liggéey meññat nag dafa doy waar ay njabootam di juddu bañ egsi ci tey sëñ Goubass sama xarit Fatma mi nga xam ne ci mooy waajuru Cheikh Mor Farima mii di waajuru sëñ Motola mii moo xam ne mooy xalifa dëkk bi tey sëñ Goubass moomu nag mi ngi bokk ak sëñ Amar Asta lépp benn waajur sëñ Amar Asta moo jur sëñ Maama Fa Mbakis Amar sëñ Maam Kaltoom moo jur soxna Aminta Amar moo jur sëñ Moustapha ma Samba ak sëñ Maam Mor ma Samba sëñ Gumbaasta moomu nag Mamadine soxna moo ko jur Mamadine soxna ma gumba julit ma gumba julit mataar xëri mataar xëri ma gumba mi mu naam ma gima mi mu naam sëñ gàddu gumba ngoone ba mooy ki nga xam ne mooy sañ ci fii وكون لمنايا مغتبا مرنت بالله الكريم والرجول bokki jullit yi bokki taalibe yi dëkkandoo yi xarit yi am di jàmm yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. samaata cheikh Abdourahman Mbakke ibnu Serigne cheikh Ahmadou Mbakke Gaynde Fatma ibnu cheikh Ahmadou Moustapha al Karim ibnu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimal Moustapha mbokk yi noo ngi am mbégte ci bis bu tedd bii di soixante et unième édition màggalu gàdd yàlla la ko dalef ci kilifa yu tedd ya ba ci jotaayu sunu wajur wu tedd wii di sëriñ Moutada Amar di jëmi sëriñ Mor Faaruma tey nag Mbàkke sëriñ Abdourahman ibnu sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde faatma mi toog ab jotaayam ñu ñaan mu yàgg lool te ànd ak wér ni mu ko daan defee ci at mu nekk ñëw na ànd ak moom bis wan ko ni ko dey lépp lu mag ñu baax ña daan def dama koy yokk rek waaye duma ko wàññi mu ànd ak délégation bu am solo waaye nag fekk fi njabootu sëñ Modou Faar moo gépp waaye nag fekk mboro njabootu sëñ Gumba Asta gépp kon noo jox kàddu gi sunu papa sunu xarit ki nga xam ne Cheikh Mouhamadul Moutada moo ko yar jox ko jikkoom mu liggéey ku liggéey bu rafet ba noppi koo gis yeesal ko ci ki nga xam ne tey si la c'est l'ambassadeur de l'islam l'avocat des immigrés Serigne Mamadou Cheikh Mouhamadul Moutada nga xam ne lu Serigne Moutada bàyyi woon yaatal na ko. sëñ maa ngi lay ziare bu baax bi sëñ Moutada nee na mi ngi lay ziar bu baax. te bii ma lay ziara. nee bii mu lay ziara. yi nga xam ne siyaare tëbbu dafa bokk ci siyaar yi nga xam ne siyaar yu tëbbu la tëbbu mooy siyaare sàkku dara tëbbu mooy siyaar boo xam ne si da ciy sàkku dara ndax jataay ndax jataay bii maye na ko maye na ko sëñ Modou Moustapha ndax sëñ Modou Moustapha mi moom kër gi fii la ànd ak sëriñ Bachirou nee na fii la ànd ak sëriñ Bachirou Mbacké ñu ne néeg bii la sëñ Modou Moustapha dal ñu ni néeg bii la sëñ Modou Moustapha dal waaye néeg bii la sëriñ Basiiru dal waaye néeg bee la sëriñ Basiiru Mbakke dal moom mii jottali moom mii jottali way maamam ju jigéen nee na sama maam jigéen man mii jottali daa doonoon géwél bu am solo dafa nekkoon géwél bu am solo dafa daan wax sama baay fu sama waaxu jëm ci kër gi mu topp ko nee na fu sa Mor Faari ma Amar ma sa jëm mu waaxu topp ci moom naa ko yow de xaw ma yaa fi gënam déet waaye yaa fi gënu gan nee na di ko wax naan ko man da xaw ma yaa fi gënam déet waaye yaa fi gënu gan ndax sëñ Modou Moussa day ku mu gane ndax sëñ Modou Moustapha day fu mu gane si ànd ak rakam sëñ Basiiru ànd ak rakam sëñ Basiiru man naa xam ne yaa fa gënu gan man naa xam ne yaa fa gën aw gan te déggaguma ku am gan ñii te déggaguma ku am ku dajale ñaar ji daj daloo leen Serigne Cheikh Amadou Mbacke ne Serigne Cheikh Amadou Mbacke sa waajuru baax wa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 bi sëñ bi tawatee ne bi sëñ bi tawatee sëñ Cheikh a ko woolu ne sëñ Cheikh ko woolu yóbbu ko ndakaaru yóbbu ko ndakaaru ma ngi ko dëgaloon riidis ma ngi ko daaloon riidis ca néeg ba ca suuf ca néeg ba ca suuf fa la ko téye fa la ko ba yàgg ba yàgg mu woolu ko mu woolu ko ne ko nu docteur yi def ak yow ni ko nu docteur yi mu ne ko maa ngi leen di gis de mu ne ko maa ngi leen di gis de mu ne ah ko kon da ngaa tanewu ko kon da ngaa tanewu la mu ne ko man de la ma wax rek laa gëm mu ne man de mu ne ko man la ma waxoon rek ñëwal daal ñëw naa ñëwal nga ma waxoon ñëw naa yabal nga leen fa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 nee na barab bii mu ñëw du fi gan te day am mbégte lool bis bu saa yu agsee mu bàyyi lépp lu mu doon def ñëw ndax jaral nga ko ko njabootu gàdd yàlla jaral nañu ko kon nee na mi ngi fas yéene incha allahu taala àndoo ak yow saa yoo ko woote te yan mi ngi ñaan woote bi yàgg lool. mi ngi leen di digal nag ñu gën góor góorgóorlu ci jaamu yàlla sàmm ak bokk di dimbalante tey suturalante te fas yéene li li nga xam ne moom la fi mag ñu baax ñi bàyyil woon. ndax ku xam gàdd yàlla xam ne ëttub diine la ku xam gàdd yàlla xam ne ëttub cosaan la kon nee na mi ngi ñaan yàlla na fi yàlla dolli jàmm yàlla na fi yàlla dolli xéewal di la sant nag di la gërëm ci sa diggante ak moom ndax xam na cër bi nga ko jox xam na ni fa nga tegoon sëriñ Mbàkke Mohamed teg fa Cheikh Abdoul Fatah wuute la woowa foofe nga ko teg moom jëmmam ji kon mi ngi lay sant di la gërëm doomi sëriñ Cheikh nag ay kàddoom du gudd di la ñaanal nga yàgg fi te ànd ak wér yàggal def bis bii mu yàgg la fekk di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant soxna yi ak njaboot gi di leen ñaanal jàmm ak ngërëmul Cheikhul Khadim asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa كما كفاني fii parce que ministre ñëwuma fi parce que général dama fii ñëw parce que jamono dama ko teg soo amee looy bañ lu lépp doon la ko tëgul te man ak taalibe bi nangu li ma war ak ànd mbokk moom doole ba lu ma teg naa ko nag te bu ma fi doon ñëw ngir àddina kon tey mën naa fi may ma fi doon waaye na ma fi ñëwee woon daaw sama ñëw ren boobu ci gën a neex te moo gën a mat ndax dama fi ñëw sama coobare bopp kenn yónni wu ma fi waaw teraanga ji moom du ko wax ndax lu ma fi indi rek fekk fi lu ko te nit dina ko donc sëñ bi man bu may wax ci yow du ma bëgg taxaw ndax li nekk ci man muy dëgg damaa bëgg ñëpp dëgg ma di ko wax kuy wët sëñ Tuubaa boo ñëwee fekk wala fi nag nee nañ loolu mu jafe la dangaa demul fu am te yéene ñu ko Gabriel am na lépp waaye lii solo si mooy la nga def ma yéene la man de maa ngi ci lay tax ngeen yéene ma ko xam naa lu ngeen ma yéene mu dal ma waaw ñoo ngi lay sant bu baax a baax di la doyloo ci suñu lépp nga ñu fàtt si ñaan ndax ñii ñaan ñëpp bokk la ñuy wax waaye nañuy mel ba bu ñaanee suñu borom nangu ko loolay différence dafa amoon baayam bu ko bëggoon lool muy sëñ Mor Mbaye Cissé bu njaareem daf maa waxoon ne sëñ Mourtada ne daf maa waxoon ni am na tur yoo xam ne am na tur yoo xam ni fa nit di jaar fa nit di jaar bañ dik ko wooyee fa ban dik ko wooyee lu ko jar di wooyee la nee na lu ko jar di wooyee la ndax ñaare boo leen ko wooyewul ndax nee na ñaare boo leen ko wooyewul su seen xel matul bu seen xel matul dañuy defan da nga leen a iñaane dañuy foog ni da leen a iñaane mu ne ma fa nit di jaar. nee na fa nit bañ ne ko président de la république. bañ ne ko président de la république. la mu daj du ko wax. nee la mu daj ba doon ko du ko wax. waaye fa nit di jaar nee na fa nit jaar it. bañ ne ko général. bañ koy woy général de l'armée. la la la mu daj du ko wax. nee la mu daj du ko wax. mu ne aji màkk sax. nee na aji màkk sax. yàggut. yàggul waaye ku dégg ji nee na waaye ku dégg alaaji. ba nga daataan dégg ji nee ba nga daataan dégg ji xaw ngaa dee. nee na xaw ngaa man nag. nee na man nag. maay wax. maay wax. ak maam Thierno. ak maam Thierno. di sama jarbaat. di sama jarbaat. dëkk ci kër gi. dëkk ci kër gi. di sëtu sëñ Mor Farim. di sëtu sëñ Mor Farim. lu ma sañ ci kër gi. nee lu mu sañ ci kër gi. moom sañ na ci lu ko ëpp. nee na maam Thierno sañ na lu ko ci kër gi. ndax sët. ndax sët ñeme naa wax. ndax sët ñeme naa wax. lu way juram ñeme wu la wax. ñi mu la wax. léeg-léeg nga dem ba yàgg. nee na léeg-léeg nga dem ba yàgg. ku am lu mu bëgg a wax. ku am lu mu bëgg a wax. woo sët. woo sët ne ko demal wax ko. nit ko demal wax ko. yow dara du la ci fekk. ca dara du ko ca fekk. ndax sët la. kon moom. kon nee na sëñ maam Thierno. fii la dëkk ci kër gi. fii ci kër gi fi nga dëkk fi nga bokk. ci démb. ci démb ak tey ak tey jii. moom nag. moom nag. li góor doon wax. nee na li góor a doon wax. bëggul ku ko wax. bëggul ku ko wax. waaye dinaa ko wax. waaye dina ko wax. ndax ginnaaw lu ñu nekk. ndax ginnaaw lu ñu nekk. nga fab sa alal. nga fab sa alal. def ko ca. def ko ci. ne damaa soxla woo. ne damaa soxla woo. mbir mi jag. mbir mi jag. ndax nun mbir mi ku ci jàpp. ndax mbir mi ku ci jàpp. bu jagee. bu jagee. am na looy am. am na looy am. loo xam ne. loo xam ni kenn du la ko wax. kenn du la ko wax. lool tax ma ciy son nee na looloo tax mu ciy sonn. أذن توجه إلي فاندب ركما لي ركيم ولكما ومنه تأتي للمنى والهكما يقاد للخبير والأديم ما دونه علوم والتحليم نبع الخبير عن فادي جلا شرد بي لبس علم أهلا براني عليم من دلالي فسرت مغشطا بلا إخلال ما الأكيم مهترى كليتي من البلايا أقبلت أديتي إلا يا أقبلت أدية الكريم وكل ما كنت من الله الأرام آيات nee na yow day doo jug ci lu amul fulla nee na mënoo doxit permanent mooy tukki service. nee na yow li nga man rek mooy tukki service. nee na mu loolu daal mooy tukki liggéey. nee na yàq li yoon wi. xamle ko. nee na xamle ko it nag. ci mag ñi. ci mag ñi nag. ndax yoon wi. ndax nee na yoon wi day. li am ci réew mi. nee na li am ci réew mi dey nga xam ne ku nekk li ngay dund. nee na nga xamante ne ku nekk li ngay dund. ci yëg sëñ bi. di ci yëg sëñ bi. loolu moom bari na. nee na loolu moom bari na. loolu mooy himma mooy li fi nekkoon. nee na loolu mooy himma mooy li fi nekkoon. ñu koo téye. nee na ñu war koo téye. mu bokk ci ndono yi. nee na mu bokk ci ndono yi nag. waaye nag. waaye nag kat. li exportation war koo génne. nee na li ñuy tudd du exportation war koo génne. yoon wi war a àgg fu ne. nee na yoon wi war a yegg fu nekk nag. loolu nag du ñëpp a ko mën a noonu. nee na moom nag moom du loolu boobu du ñëpp ko mën a nag noonu. dana laaj comportement boo xam ndax nee na dafay laaj comportement boo xamante ne ni. da nga cay gis xam-xam. nee na da nga cay gis xam-xam. muy diine. nee na muy diine. nga gis ci civilisation. nee na nga gis ci civilisation. fekk ci diplomatie. nee na fekk ci diplomatie. ndax da ngay joxe ji loo xam ne ndax nee na da joxe ji loo xamante ne ni ñu koy joxe nee na ñu ngi koy joxe xamaguñu ko nee xamaguñ ko nañ koy nangoo nag nee na koy nangoo nag fa la bi nekk nee nag foofu nag la problème bi nekk joxin wi nee na joxin wi ak ki koy joxe ak ki koy joxe mooy waral nee na mooy waral léeg-léeg léeg jafe am nee na jafe am léeg nga gis ku ko joxe. nee na léeg-léeg gis ku ko joxe nag. te waru koo joxe. waru koo joxe. ndax nam ko joxee. ndax nam ko joxee. du noonu. nee ndax du noonu. ñu rejeté ko. nee na ñu daal ko koy delloo. te day mel ni kon. te bu boobaa day mel ni. kon mbir mi. nee kon mbir mi. du ci kooku. nee du ci kooku de. waaye ci kooku la. nee waaye nag day mujj nekk ci kooka. bii loolu nag. nee loolu nag. moo yàq lu bari. nee na moo yàq lu bari. soo ca boolee bëgg di joxe. nee na boo ci boolee bëgg di joxe nag. ñu war koo jël. nee ñu war koo jël. ak lu yàqu. ak lu yàqu ak ñu bëgg koo lijjanti nee na loolu jafe-jafe la waaye nag waaye nag dafa am solo nee dafa am solo nag sëñ Touba nee ndax sëriñ Touba bi muy wax sababu tukki bi nee muy wax sababu tukki bi cër bi ko yàlla jox nee na cër bi ko yàlla jox da ciy feeñ nee da ciy feeñ ci la koy amee nee ci la koy amee daraja ji nee na daraja it nee na ci liggéey bi la ko amee waaye nag kat waaye sababu tukki bi moom nee na mooy xamle ji nag lan mooy yoonu murit lan mooy lislaam lan mooy sunu si Muhammad nee na loolu ñëpp kenn mënu ko nee na nag kon nag buñ ci wuutee mag ñi boo ci wuutee mag ñi mu rafet nee na day jaadu nee na ñu jun la jërëjëf nag nee na kon nag fi nga toll ci liggéeyal sëriñ Touba nee na liggéeyal lislaam nee li ci waa réew mi xam nag nee na bari na waaye nag liñ ci xamul it nee na bari na de ndax nee na lu nekk ci biir nekk ci biti nee na ka nekk ci biti nag nee na mooy xam la ci biti waaye ki nekk nekk ci biir nag nee na li ci biir rek ngay xam nee moo taxit nee na fi nga toll ci sab liggéey nag. nee ba nga dalee jàng léegi léegi te nee wax na ñetti mbir nee na ku ci bëgg a yuutu yonent bi nee danga def moom lu ëpp ñett nag wala lu mu néew néew nee na moom mu ñëw bañ def ñett de nee na boo jàngee ba noppi danga nga jàngale ne nee na boo jàngalee ba noppi danga nga nee na boo waaraatee ba noppit nag nee na da wut ay daara nee di jàngal nit ñi te nee na yow yaa ngi jàngale yaa ngi def fatwa nee na yaa ngi déplacé wu nee di jàngale ci biir àdduna bi nag ndax nee na foo demit nee na li liggéey nee day jafee xam nee na yaa ngi nii de nee na Serigne Mame day bu wàccee Italie nee na balay gisee kub Sénégal di taalibe nee na day dem ci police bi nee dem immigration dem gendarmerie dem préfecture nee na laaj leen lan mooy problème sénégalais yi nee ñu wax ko lañ koy wax. nee na moom it moo wax leen la cay xalaatam nee na ñu discuter ba am solution mu soog a ñëw ci salle bi waxtaan ak taalibe yi nee nga xamante ne la mu fay lijjanti ci wàllu taxawaay état bi sax xam nañ ko. Euh, sëriñ Mourtada ñu ngi lay nuyu di nuyu njaboot gi fi nekk yëpp di bokk yëpp ni nga ko waxee. mooy njabootuk sëñ moor di sa njaboot di njabootu sëñ fàllu di njabootu sëñ gumba waaye di njabootu ñëpp euh, nii tamit rek lañ ngeen ko daan defee saa buñ fi ñëwee du fii rek waaye fu ñu leen fekk nii rekk lañ leen di fekk fu ñu leen fekk rek fekk ngeen dend ak seeni bokk fekkit ngeen ànd ak seeni bokk te loolu nit bu doy de ay bokkam rek dafa amul bokk yu baax ñu ngi lay sant bu baax di sant yàlla yit ci lim nu may nu ñëwaat fi dell siwaat fi te yàgg ko def yàlla nañ ci gën a yàgg ak yéen ni nga ko waxee it ñëw bi ñëwu service la euh, ñu ngi lay sant bu baax ci baat boobu nga ñu dimbalee mooy ñëw bi ñëwu service la ndax xëy na tey bis bu ñuy màggal la di ko màggale suñ moor njaboot ji kon ku fi ñëw ku ne rek jàpp nañ ne ñëw ci loolu nga ñëw tam jar ko muy ñëw ci màggal euh, ñëw ci màggal it ñu di ko def fu bare te fépp fu ko def bu baax rek lañ fay formal di ko fàttali ko euh, mu mel ne kon suñu dee def léeg-léeg ñu woote ko mu ñu wuute ko ci yu bare wuute googu léeg-léeg mu niru ne xëy na loola dañoo ñurul fekk ci bis bi ci boppam néew na luñ koy dem ci yu bari dara luñ ci fekkee nag dem ci ndax lépp noo ko bokk ak ñi koy def ay bokk koy def di sunuy kilifa di sunuy bokk kon lu ci am rek ñaare danañ fay dem balaa bis ba bis bii tamit mënoon nañ ko def démb wala bërki démb waaye man maa ñëw ci bis bi kon ñëw bi du ñëw ñëw ci màggal wante ñëw service la ñu ngi lay sant ci baat boobu nga ñu réglé la euh, li ci des it euh, ñu di la ci sant ndax saa buñ fi ñëwee euh, xam nañ ne am nga am nga am nga ñu bare wante yow it ñu bari am nañ la wante problème bi fi mu nekk mooy fàttewoo sa bopp léeg-léeg boo amee ñu bare man nga koo tëyal sa bopp léeg-léeg bu la ñu bare amee mën nañ laa nangu ñaar yooyu bu dajee léeg-léeg nga fàtte sa bopp ndax ku ci nekk jëflanteeg moom du yomb te loolu lépp kon dafa bokk ci loo xam ne lu yàlla di leen nit la kon ñu ngi la ci ndokkeel bu baax ndax lu am lu jafe la euh, di waxit ne saa bu ma fi ñëwee rek xaw ma seex tey lu tax muy wax waaye ajoor yi ma fi daan fekk dama daan bëgg a dégg seen kàddu ñuy loo xam ne euh, li ñuy wax fasaaxa ci baatu làkk yi ñuy làkk muy am élégance ci nasaraan wala muy fasaaxa ci wala xikma wala yu man di doon ci xeetu li ñuy tuddi balaaxa ci wax fii boo fi ñëwee nanga koy gis bu baax li ci deseen mooy turi cosaan léegi da dégg gille wala ni nga ko waxee léegi yooyu tur yi nuy tudd yi ci des turi naar la rek parce que ay Omar ak Ali ay ñooñu bañ daataan dugg lislaam dañ koo fekkoon ñu am ko lislaam soppiwu ko kon yooyu tur lan la woon ah seen gille yeeg yeetit xëy na bu ñu ko soppee rafet tur baax na ndax suñu boroom wax na ko wante ñun dañ koy bàyyi xel aayul dara nekku ci lislaam mënul waxul kenn ne ko boo tuubee soppil sa tur bëgg na nag turu rafet loolu tamit dafa ñuy fàttali cosaan li yu mel noonu moo tax ñu itam saa bu ñu fi ñëwee rek ñu fi bëgg a yàgg duñ fi bëgg a yàgg googu nga wax it bëggu defewuñ ko barab bi bañ koo def waaye li ma la wax la euh, ginnaaw euh, yàlla def na nga am ñëpp ñëpp am la te nga téye sa bopp téye sa bopp googu nag moo ñu tax moo ñu yitteel waaye bu fekkoonte ne li ñu leen nangu leen la ñu ca des tëy nga leen te lépp yam ci say ngir yow rek comme ni nga ko waxee léegi kon bu boobaa sa bopp doo ko am te bu sa sa bopp moom boo ko ñàkkee rek ah ñun day xaw ma nu muy demee waaye duutuñu sawar sa bopp nag am ko lu lu xóot la du lu ñuy wax fii bu càgg ne da ngaa fonk sa bopp du càgg ne nangam nangam du càgg déedéet beneen mbir la mooy nga bañ a fàtte sa bopp bala nga am mooy la nga am nga téye ko kon moo tax ñun tam. ñu di fi sawar di fi ñëw ci service ci loolu di sant tamit njaboot gi ndaxit yaay seen kilifa te ay kilifa lañu bu fekkee ne da ngaa njabooti nag ay kilifa am na doxeen woo xam ne boo ko doxee surtout Kajoor am na noo xam ne bu ñu demee woon du sotti kon nag yàlla na la ci yàlla dimbali te sàmm la loolu moo tax bu ñu fi ñëwee du fi bëgg a yàgg ndax xam nañ ne ñépp la bokk te nga bëgg a téye sa bopp kooku nag ka bëgg dugg ci sa biir bu boobaa mën naa am mën naa ñàkk loolu rek la waaye fii bu ñu fi doon toog ba weneen waxtu mu ma di doon sëñ Abdourahmane fekk nañu fii ak ñeneen ak yeneen te dana bari ñu fiy ñëw ci ay kilifa te ku ne am nga ci yow cër waaye am nga ci moom cër te bëgg ngaa tey sa sa yëfi boppit kooku nag fokk mu mu muy muy mu yomb loolu moo tax ñuy def suñ ñëwee rek taxaw fi ba ñëpp xam ne service la ñu fi indi màggal am na bari na ci màggal yoo xam ne noonu ni ne ma ko waxee rek lay defe lu ñu fi fekk rek te ay bokk nu seq kook ñoom xëy na ñu bari xamee wuñ ko noonu mën nañoo jàpp ne sax fii rek laay dem ci màggal fekk yi ci des danaa dem seq ko ka ma ko seqal waaye jëmmi bés bi nag moom service rek bu dul woon service di màggalu kese mën naa amit du demee nii loolu rek la loolu it baax na ci kon ñi ngi gërëm bokki taalibe yi fi nekk yépp ak njaboot gi ngeen xam ne am ngeen seen yëf bopp ndax kat sëñ tubaa bari le na lool yàlla may na ko lool waaye nag daw ko sànni ku ci am ku ne mën naa mën naa rogalaat nag ba ba ba ba doo xam fa muy yem waaye nag kenn mënta lijjanti ba am ci te liggéeyoo ko kon nag li leen seeni waajur liggéeyal yéen njaboot gi yéen a tax loolu nag téye leen ko bu baax téye gi nag nga sàmm la nga xam ne moom nga war a def yam ca la nga war a def te di ko def defin bu sell loolu nag boobu ba tey it nag dégguñu mu wax ñu kenn ci njaboot gi lu dul lu baax wala dégguñu benn yëngutu ba ci ñoom ñii di wax sax xëy na suñu deboor defe naan lañ koy def waaye mësuñu ko dégg ndax wax nag buñ la xasee ne danga koy def te nga teñ leen a yaa cee juddu kooku responsabilité la du lu yomb xëy na nag bi ci ñenn ñi buggee jaxas jaxase ba ëppal loolu moom beneen affaire la waaye daal wax dëgg yàlla lu ci bari loolu ñu ngi koy bàyyi xel kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di gërëm mbokk yi fi nekk yépp nag jërul tudd euh, di ñaan yàlla bés bi yàlla eggale ko ci jàmm lépp lu fi nit sàkku yàlla na ko yàlla faj yàlla na ko yàlla ko yàlla na ko yàlla defal ajo ju fi yàlla ku fi nit indi tamit yàlla na ko sunu boroom faj ci barke borom bés bi kon jërë ngeen jëf asalaamualeykum wa rahmatulah wa taslimu baaxi la yazaalu agrama ala lazini yuwaddi karama أبقى شرع ميلزي لي خادة بدل شيء بردا فتخادة هدية مني إلى خير الورى شرع علي من دعا وصورا مد يدي لخير من خاد المنى لي بلا أسا وكل أمنا أذنا في ظفري وغلري مما يخالف رداء المدري لله في دارين بالمعية الأكبر للحادثة تقيدي لي غاد بالمختار ربي كلما طلبته مهردا مسلما هديتي للمصطفى في أبدي بلا ناء أو أسن أو كبدي من سن أنه يكون أبدا يرلي بالذي كخدمة بدات نفيت شنا بأني القديم بما وناء مثله كل قديم فرأى جلال إله بأي عاش بمن ولاه ليغ الذي لا يقني من الإدارة أن لا تشد ما مبيد من عدا لكل من لا يقني من قبل ولم يطلب دنيا وأخرى قبله هداني الآدي بجاه الآدي كما تقبل به جادي وجار بها بقدر الشمل شاعت الكريم مننا مؤشما يزوغ لي ما شيء بلا انتهاء ولا أذن كما يلو سيننداء شاغ لي الباغي غيرا بالانجرام كن فيكون لي يوجه المرام تكريم من ليس له انتهاء نيادي ترتدر الله بادر لي جود الكريم وكرم باخ ودود لا أفارق الكرم شاء الإله أنني مكرم